jërëjëf mbokk ñoo ngi fi nga xamante ne que moom mooy parcelle unité 10 fekk si fi ndaanaan loolu ak des parcelles assainies kooku nga xam ne dama naan saa su ne gudd rëyul waaye bëre bi mokk na fit wu rëy na te xeex bi mokk na ñoo ngi fi open presse moo du xarañ loo lépp lu fi am ci ambiance dinañ ko ànd dund ko ak yéen ci senego.com. na sëñ bi Modou pare na bu yàgg dimanche rek la ñuy xaar defal ko bagage ñëw ñibbisiwaat fii féete ko. war na seerafal affaire yi neex na ba pare. war naa daw non buur boo moo yàgg na làmb ji bu doon suba suba pare nañ gé xoolal géej waay parcelle ak gën pare pare nañ démb tey soog a ñëw waaw waaw maa la wax te bu soobee yàlla le 28 dinañ xam ne lépp dëggal allahumma amin yàlla na yàlla dafa jàmm ñu ngi waaw pare nañ bu baax pare nañ bu baax laa ma taal pare nañ bu baax Modou borom baax la ndam rek lay am barki Seydina Limaamu ndam rek lay am barki Baye Laye Seydi ndam rek ndam rek amul leneen amul gër du ma romb ndambe wax ji fi ne rek. non déggoo li ma la wax de dijj dëgër ko gën te Modou dafa dëgër barki Seydina Mouhamed. Ibrahima Modou ngi noonu def capuchon bu rouge boo ko gisee yaa ngi gis Modou bu serein Modou bu liggéey mu ngi noonu maa ngi lay nuyu Modou. waaw affaire bi Modou Lo la Modou Lo la affaire bi waaw waaw. Lac de Guiers bu ngeen ko jàppee dimanche nu muy demee. da ngay jàpp daan ko rek combat bi na bu yàgg. jeex na bu yàgg. leer na leer na Molo la la gerte. Molo ma mun la la gerte mu daanu. Molo la la gerte kat. dañ koy duma rabbi. moom buy xaar combat bu métti combat bu métti lay doon bu yaboo na ko pare parce que loolu la Modou entraîné Modou dana ko teg lu metti danañu bëre lu metti te Parcelles Assainies dañuy dox dem fii rek stade bi ñëppay dem kenn du des. no incha allahu rabbi ci ngay xam capacité de mobilisation waa Parcelles Assainies ce sera un combat âprement disputé mais incha allahu rabbi ndam dina ñibbi si parcelle loolu moom wax nañ ko Lac de Guiers 2 parce que wax la ci amoon li muy wax yëpp wax na ko nee na Modou jàppul forme Modou ci boppam moom lépp mooy liggéeyam entraînement moom lay def bëccëg te aussi tamit wane na ko te bu sumee ko stade dina xam ne lii ku ko topp doo caaxaanee lamb waxuma la li nekk 26 unités yi la wër mais li nga xam ne ku téye flamme olympique Modou flamme olympique lañ ko jox mu téye. ku ko téye lii topp la xam na duñ la seetaan ngay seetaanee lamb li mu war a entraîné entraîné na ko entraîné na vivacité entraîné rapidité entraîné ci contact entraîné ci xeex Lac nag du ma koy bu ko kenn nax nañ ko préparé loo combat bu métti ñu ngi lancé nag parcelle waaye ñu ñëw ak mobilisation bu exceptionnelle ñëw feesal stade bi ci kattanu yàlla. ma bala ñu gis nga indee ko ka ñu laqoon ba bal yi a retraité moo di kan Ababacar tey mu tey mu saa su lu mu indi. waaw kooku tey nag damaa indi mbay si mbay. tey damaa indi mbay si mbay ñu nuyu Mbaye si Mbaye taalibe Cheikh baa ngi nii Mbaye si Mbaye ndax ku ne xam na ni Modou Lo daa bëgg sëñ Babacar si dafa Ndiaye Babacar Sadi ñu Mbaye kaay Lamine Moussa Yacine Mbaye génn na lu bees bu ñu fàttee combat Gris Bordeaux Modou Lô mu ko tëggaloon ka ñu làqoon ba ba leen aar moo di kan ñu ne ko Ababacar waaye tey gis nga li mu koy nil Mbaye si Mbaye Mbaye si Mbaye taalibe Cheikh baa ngi nii Mbaye si Mbaye bira amaana na yow Modou ngi liggéey lu metti mu ngi contact Modou ngi contact waaru énergie ngi contact waaye Modou dafa mel résistance lay liggéey Ibrahim résistance lay liggéey Ibrahim liggéeyagul box Modou ngi bagaar ak Laye Pythagore Modou dem na Laye Pythagore mu extraordinaire tey parcelle la ñu wax tey waa parcelle ñëw nañu Papa Sow a ngi noonu. Franc wa ngi noonu ndeysaan Franc ànd ak Modou di entraîné làmb jaa ngi noonu gis ngeen ambiance bi ay Sénégal <laughs> ay Sénégal ay Bour ay Bour Gueweul lii la Modou Lo Papa Sow ñu ngi liggéey Birahim Modou Lo Papa Sow ñu ngi liggéey Birahim Modou Lo Papa Sow ñu ngi liggéey Birahim ñu ngi liggéey ñoom ñaar Franc ak Modou Lo fii tey kenn xaju fii Modou Lo fii tey kenn xaju fii ñu ngi liggéey Birahim ñoom ñaar yàgg nañu contact ñoom ñaar yàgg nañu contact Birahim du tey du tey soog a ngi moom tamit ndeysaan damaa ngi rog énergie moo jur yeneen écrit yi rog énergie moo jur dóor waar rog énergie moo jur dóor waar rog énergie moo jur écrit Cambérène moo jur nekk parcelle yëpp